président de la république ne leen nguur si jël na seen 74 milliards jàpp naa ko téye naa seeti naa ko guddi yebal ko ay nit waxtaan nañu nee na dana ma ci jox sept ma campagne beneen élection bu ñëwee dana ma joxaat sept muy 14 waa ana 60 yi da koy baag man ma noos ci waaye yéen nu ngeen di def yéen yéen ñi moom 74 yi. moom lañ ko du ngeen jël yàq fekk ko fa mu toog non franchement bu ngeen amee fulla ko ne me fatiguez pas franchement. c'est franchement les journalistes les machins il un de vos collègues. Euh, qui m'a interrogé là-dessus. Je lui ai dit, sortez-moi le protocole de Rebus, lisez-le. Vous ne pouvez pas. Un protocole, ça dire un accord entre deux parties. Le président et Idrissa Seck. d'accord nañu lii d'accord nañu lii signé nañu fii ana kayit gi bër gi démb liir naa ñu ne këyit ga daa réer ndax avocat ba daa màndi notaire ba sàcc kayit gi xaw ma de mais quand que ça c'est sérieux pour un pays non franchement quoi sortez-moi un papier sortez-le et lisez-le et vous aurez ma réponse en revanche ce que je vous ai dit moi je vous ai dit d'ici à l'extinction du soleil j'ai dit ça il y a 11 ans 11 ans fu ngeen gis fu ñu ma téye ne ma doo fi jóg kenn mënu ko kenn vous pensez que Macky Sall bu ne xam na fu protocole nekk waaw ba muy ñëw sama kër di ma wax jàppale ma ci élection yi xamul ni protocole ba muy toog ak man ak Moustapha Niass ak Tanor tous les jours ci bureau di waxtaane réew mi xamul woon ni protocole am bu xamee ni protocole am na moom moo wuutu Ablaye Wade ci yii ma leen wax ci responsabilité wu aar alalu réew mi ak ci responsabilité wu yor dooley réew mi am na procureur am na police am na gendarmerie am na lu ne waaw defe ngeen ni bu doon dëgg la am na dara ci man dina jël benn euh, espèce u chef de cabinet wu espèce u ministre naan ko demal porté porter ji de France ci benn ONG Non, mais c'est évident. Alors, allez l'interroger lui. C'est le président de la République, c'est à lui que vous avez confié votre argent. C'est pas à moi. Moi, je vous ai dit, chaque centime que je possède a une origine propre et licite. Vous savez, c'est très simple. Wade vous a dit, bind naa George pour mu jox ma sama 74 milliards ana lettre ba ana tontu ba defe ngeen ni États-Unis après le 11 septembre nit dana gàddu un centime di ko fa dugal te FBI du la laaj fu mu jóg mais quand même soyez raisonnable problème mooy que nit ñi dañoo jàpp ne kilifa du wax lu dul dëgg. je comprends qu'un Sénégalais. normale puisse être manipulée par des autorités qui mentent. C'est possible. Voilà. Mais moi, en tout cas, je vous dois aucun centime. Rien.